aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim mbokki jullit yi mbokki taalibe yi kenn ku nekk ñu ngi koy nuyu ci turam ak sant di jiital ci nuyoo bi Cheikh Amadou Muntaxa nga xam ne mooy jëwriñu Cheikhuna Cheikhuna Ahmad Xadim di ñaan sunu borom guddal fanam lool te wéral ko ba naa lim naa la liggéeyal Serigne Touba yëpp mu àggale ko di ko ñaanal mboolem njaboot Cheikhul Xadim gi yëpp. di jiital ci nuyoo bi tam sëriñ Afiya bu sa imam bi nga xam ne mooy jëwriñu daayira Moukhaddamatoul Khidma ci réew mi ak ci bitim réew yëpp fu ci nekk itam ay jëwriñam nekk fa ak ñi nga xam ne ñoo koy ñooy saytu liggéey bi ci biir réew mi ak ci biti réew mu mel ne jotaay bi suñ gisee ñi nga xam ne ñoo nekk ci suñu gannaaw mën nañ cee tudd ñaar ba ñett rekk ñu xam ne suñ leen tuddee mboolem jëwrinu wala kilifa yi daayira Muxaddamatul Xidma yëpp teew nañ ci jotaay bi ki ci njëkk mooy sëriñ Abdul Ahad Bousso Moxtaar mi ngi ci sunu gannaaw ki ñu ciy toftal mooy sëriñ Abdul Ahad Bousso mu talib ak sëriñ Fallou Mbacke mu bàyyi Touba mi nga ne moo jiite organisation daayira Muxaddamatul Xidma mu mel ne ñaar ñi njëkk tudd tam ñoo jiite secrétariat bi ñoo nekk ci bopp liggéey bi sëriñ Abdul Ahad Bousso mu talib tam nekk ci organisation. mu mel ne jotaay bi jotaay bu am am solo la boo xam ne am na lu ko jiitu ndaje mu amoon fii ci Serigne Xaafi kër Serigne Xaafi Bousso imam gannaaw màggalu Touba 2022 ndaje mu fa amoon ci jëm ci réunion boo xamante ni muy saytu liggéey bi ci biir ak ci biti mu mel ne la ëppoon ci ndaje ma itam waaye daayira diaspora bi dañ ci teewoon li ëpp ci poñ yi ñu fa doon waxtaane wala heure du jour yi ñu ci doon waxtaane ñoom ñoo ci ëppoon solo mu mel ne ca xalaat yu am solo juddoo woon fa ci añ yi nga xamante ni day faral di am ci barab bu tedd bii juma ju jot mu mel ne dafa am ñu ko gàlloo woon ka njëkk di sëriñ Xafiyu bu sa imam bi nga xam ne mooy jëwriñu liggéey bi dépense yooyu doon gàll ci loosam mu ko daan jaayante ay at yu baree bari mu mel ne ci jotaay ba gannaaw ba ñu leeralee waxtaan waak yépp bañ fa jógee am na lenn ci mbokki taalibe yoo xam ne mbir mi def na leen xaal def na leen yitte ju kawe joo xam ne euh, waxuñu mbokk yi dara waaye bañ fa jógee waajal nañu ay daje ak i nos yoo xam ne bañ ko sottalee leeral nañ ko kilifa yi daayira Moukhaddamatoul Khidma yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Sénégal rawatina barab bu tedd bii ci jumaa ji mu mel ni itam lu jiitu ñu tàbbi ci atum 2023 juróom-ñaari ajjuma yi nga xam ne moo desoon ci atum 2022 ñoom ci seen biir ñi nga xam ne ñoo nekk lenn ci réew mi ak ci biti réew kenn ku nekk da ngaa sàkkoon bis di ko jaayante ba juróom-ñaari ajjuma yooyu mat mu mel ne ajjuma jii ñu nekk tey moo njëkk ci atum 2023 moo waral kilifay daayira bi ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew ne añ yi tey dañ koy jëmmal wan ko ñi ci réew mi ak ci biti réew ba ñu xam ne liggéey bu am am solo la boo xam ne mbooloo mu takkoo takk ñoo fi xéwloo gannaaw buñ jullee ajjuma ba noppi moo tax duñ guddal dafa mel ne waxtu julli bi li ci des bareetul ñu gàttal sunu kàddu mel ni ku ñuy wax sëriñ fàllu euh, sëriñ fàllu Diop ci Angleterre ak sëriñ Abdul Hakim ak sëriñ Abdul Ahad Bousso Thierno ak bokk yi leen ci jàppale yëpp mel ni sëriñ Hadi bu ñu ko joxee kàddu ak jëwriñ Assane Diop mi nga xamante ni mooy coordonné li ëpp ci daayira diaspora bi moom moo koy coordonné ñoom ñoom lañ ko àndaloon mu mel ne sax ñenn ci ñoom seeni njaboot ñi ngi fi xam naa ni kenn ku ci nekk dañu la jox kàddu ñaari ci ay soxna danañ fi jël kàddu ngir leeral njëkk bis bi juróom-ñaari ajjuma yi nuñ ko nose woon laata ñu ciy agsi kon ñu njëkkanteeg waxtu bi mu mel ne lu mel ne ñaar fukki minutes yu manqué tuuti mooy tee ñu noddu ñu njëkkanteeg waxtu wi jox Serigne Hadi Touré moom tam kenn la ci jëwriñ yi nga xam ne ñoo nekk ci biti réew tey mu teewee liggéey bu tedd bu màgg bi gannaaw bu jëlee kàddu ba noppi euh, lenn ci soxna yi danañ jël kàddu suñ noppee sëriñ Abdou bu Bousso Mokhtar mooy tëj jotaay bi ci turu daayira Muxaddamatul Xidma ci turu sëriñ Xaafi Bousso imam kon sëriñ Haadi bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. lisaani nawir janaani safi amaani wasit baraay mbokki jullit yi mbokki taalibe yi. ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara di leen balaq di leen balaq di jiital ci nuyoo bi saahibul fadilati Cheikh Mouhamadoul Mountakha ak mboolem njabootug sëriñ Touba gi topp ci gannaawam ñaan sunu boroom yàggal ko fi lool te mu wér di nuyu Cheikh Afia Bousso al imam ak mboolem njabootug sëriñ Touba gi nga xam ne bii ñoo ñu nekkal ci fii nga xam bii ni ñun ñëpp ñoo fi war a nekk ñu ñu fi nekkal ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu di jël nuyoo bi nag di ko teg ci turu loxol Cheikh Abdoul Makhtar sëñ Makhtar ak Cheikh Abdoul Ahad Cheikh Abdoul Moutalib ak Serigne Fallou Mbacke mii ak mboolem waa daayiratu Muxaddamatul Xidma di leen nuyu ci turu mboolem taalibi sëriñ Touba yi nekk ci. biir réew mi waaye rawatina waa bitim réew alhamdulilah rabbil alamin ba ñu doolee sant sunu borom bu baax ci lii nga xam ne bii ne am na ñetti nañ ko xaas ci jumaa ji ndax ñëpp xam nañ ne jumaa ji lu mat fanweeri at waa bitim réew ñi ngi ciy jàpp ci mbirum bale mbirum fomp ba ci tàppi yu ñu mujj teg yëpp ay liggéey la woon yoo xam ne yi ne mu ngi ci waaye nag dafa mel ne ñu ngi door am liggéey bi nga xam bii ne mooy dëgg dëgg dëgg dëgg liggéey bi ndax yaakaar sëriñ bi dafa wax ne ku jox benn tip aji xiif mu lekk ko ci biiram moo gën tabax junniy jumaa sama baay daa wax na moo ne jamono ji ko tabax jumaa ñu soow sa lislaam kon nag Cheikh Afia mi nga xam ne bii ne moo war warlu woon lii niñ ko waxee daan ci jëf ànd kook daayira Muxaddamatul Xidma sunu boroom nag moo nu baaxe ba mu yegsi ci mbooloo mi jaar ci nopp sëñ Fallu Jóob ak sëñ Abdou Akim Mbay xaas bi dellu ci li ma ko mën a waxee nii sëriñ bi xaasale woon waa Espagne ba ñu defaraat yeesalaat tappi jumaa jépp biir ak bitti ba mu des yàlla xaasalaat na ko waa bitim réew waaye nag tàmbalee ko Angleterre incha allahu niñ ko bëgg a defe mooy li nga xam bii ne moo des ci jamono wala moo des ci sunu dund ajuma ji dikkati incha allahu liggéeykatu Serigne Touba yii di nuy liggéeykat bu ñu jullee ajjuma ba noppi añ bi sëriñ Afiye yan woon ak mu daayira matul Xidma fas nañ ko yéenee jël te jël nañ ko ba noppi li ma waxoon nag euh, biñ ko waxee ba mu yegg bi ko sëñ Assane waxee ba mu yekk si Espagne dama ne ko kenn ku man ku ne na jël waaye man maa ngi soññ waa Espagne waa France waa àddina bi yëpp Angleterre ak ba Amérique daayira sëriñ Touba yi jël ko. ndax doomu aadama ak daayira bokkuñu daayira dafa sax doomu aadama nag moom day tële day wuute day fàddu yàlla na yéex waaye daayira yi moom ala kulli alin moom fu ko xas jeeg am day sax ba abadan kon bu ñu fekkoon daayira bu nekk rek dafa jël benn añ wala ñaari añ rek day doy sëkk walis ka sax ñu naan sëñ Abdou Lahad Maxtaar jël na wala sëñ Abdou Lahad Moutalib jël na wala sëñ Fallu jël na wala keneen jël na ci biir daayir bi rek fa lay nekk ndax lii liggéeyu daayira mu xaddimatu ma la ci njiital sëñ Afe bi mu defee noonu nag yàlla dogal na waa Angleterre kalkinoon ne at mi juróom fukki ajjuma la ak ñaar ñu commencé di ko jaayante bañ ko defee noonu fii mooy wax ak yenn Espagne jël na ci fukki ajjuma ak ñeent léegi rek bi ma ñëwee ci bureau bi gannaaw tusbaar laay woo sama rakk yu ne fii daaru minam di ko ko wax mu ne ma moom jël na ab àjjuma ci biir dëkk bi boo gisee nag may wax ne na ko daayira yi jël mooy mën naa am am aadi ture man ren déwén du man wala xelam eh, faay ko ba waxtu wañ koy soxla du yegsi waaye bu nekkee ci liggéeyul eh, daayira Serigne Touba yi moom incha allahu moom loolu moom day gën a jëm ca kanam siyaare naa fii sëñ Afi ci simin bii mu tagut sax ay bis mu wax ne ma ah liggéey bi de wax dëgg noppal nañ man ne ko Serigne Touba nag boo koy liggéeyal moom dafa mel ne fa ngay nekk ca digg liggéey bi wala fa nga yaakaar ne danga nga ca am coona fa la lay awete dootoo sonn ba faw yaakaar naa ne fii ba abadan ku fi joxe lu ñuy lekk ci gannaawam nga koy roye moom mi nga xam ne bii nag moo ko tàmbali. ndax jumaa yu bari wala kii yu bari am nañ fi waaye añ bu toll nii wala mbooloo mu toll nii nga saxal leen te kenn mësu koo yëg loolu moom wax dëgg yàlla bu doon benn at wala benn weer wala benn bis sax kawe na njort waxuma laak nag at yoo xam ne kenn mënu koo lim kon nag sëñ Abdou Lahat ñi ngi sant suñu borom bu baax di sant sëriñ Touba di sant Cheikh Mamadou taxaa waaye di sant Serigne Afi ci liggéey bii di leen santit bu baax yéen waa daayira Moukhaddamatoul Khidma di soññ nag mbooleem daayira Serigne Touba yi nekk ci bitim réew li ñu koy wax li commencé kab ba kab Chine ba Amérique tàmbalee ko South Africa ba ba ngay dem Maghrib tàmbalee ko Russie ba ba ngay yegg ci fa gën a sor yépp fub taalibe nekk ñu ngi lay woo ci liggéey bii di la soññ di la wax ne kenn defulul lu ëpp doole lii yaakaar naa ne ci yoonu murit ndax benn type tabax junniy jumaa moom nga jox mbooloo moo xam ne mii ne ay nangami lim lañ ñu xéewlu ndax tey jii kat man euh, lancement bi walla tàmbali bi kawe na sama njort ci li ma gis ndax lépp luy xeetu xéewal walla lépp loo xam ne luy xeetu teraanga la teewal nañ ko fi te loolu seenu xër dong la mënoon nañoo yem ci seen añ yi nga xam ne bii ne moom lañ daan defal ñi fiy liggéey waaye ngir bëgg nit ñi xaalib yi ni ñii liñ leen di laaj man nañ ko fiñ koy def xam nañ ko moo tax ñu def lii laaj luñ man di ko def fuñ xam wax dëgg yàlla añ boo xam ne bii ni eh, li ko séeréer ba doon wax naan ceebu yëkk lañ togg tey jii loolu masha Allah ñoo ngi sant nag bu baax a baax di leen ñaanal yàlla ngeen ñaanal ñu tamit lépp gën a jàppandi barke Serigne Touba yal na yàlla def dégg ak topp di ñu di ñaan nag ngeen soññ ñu baax ñu ñu gën a soññaat suñu bopp ci liggéey bi ñu ngi leen di xamal ne it jigéen ñii soxna Cuuna Jóob mii di eh, leer ci sëñ naar Assane sëñ Omar Diop di soxna sëñ Assane mi coordinateur diaspora bi mi ngi fii moom soxna si li muy jigéen jigéen li ñuy wax naan jaan ju góor ak ju jigéen ju màtt boo luggul maara day yem mooy am moom ci ñu njëkk a jaayante ay añ la bokk ba ci Amérique gis nañ ay yëgleem ak soxna Fat mii ma nga jóge ba dakaar di jarbaat sëñ Abdou ak ki mbay ak soxna yi fi teew yëpp xëy na bu ñu yeggee ci seen kii ñoom it danañ wax seen pas-pas waaye yéene woon nañoo wax lu ëpp lii li may wax daal mooy fépp waaye nekk te daayira ne fa daayira boobu moom na fexee jëlub añ fii ba deux mille cinquante deux mille deux cent xam nu ñu koy waxee na añ yi tegaloo rek. ndax àddina yëmut ci ab lim waaw du quatre-vingt mille du cent mille du cent cinquante mille man korog bi ñu ko waxee ne quatre-vingt mille dama leen ah tey ñoo wax def añub cent mille ndax xëy na ku lekk ceeb da nga bëgg ndox mbaa nga bëgg fur wi wala doomi guro sax te comme nag njëg dañoo nekk jamono yi boo xam ne njëg yi moom day alivé fu mu toll day yéeg day yéeg kon kenn mënu ko baasale foofu kon nag yéen daal li ma leen di wax mooy nu mu gën a baaxee nu mu gën a yaatoo rek dee leen ko defee noonu garanti naa ne waa diaspora bi moom fu muy fu facture ba di toll rek danañ financé lu ko raw wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. kan yi ëppoon na euh, bañ yëkkati mel na ni jaajaat nga Pastef yi ba noppi lalaat nga xolu murit kon ñu njëkkanteek waxtu bi rek jox soxna cuuna mi nga xam ne mooy wax ci turu soxna yi doon ci soxna Serigne Hassan Diop mi coordonné. daara Moukhaddamatoul Khidma ci diaspora bi yëpp. maa ngi siyaare sama ci biir di sëñ Muntaxa ñaanal mu yàgg fi lool te wér di ñaanal sëñ Afi Buso sunu jëwriñ mu yàgg fi te di ñaanal waa Moukhaddamatoul Khidma ñëpp rek bàyyiwuma kenn di soññ sama mbokki jigéen yëpp rek sama mbokki soxna yëpp waa biir réew waa bitim réew rawatina nag waa bitim réew maa ngi soññu ñëpp te xam ne añ yaa ngi nii daal tàllal na loxo ñëpp fu waaye mën a nekk fu ne rek tàllal nañ la loxo ku mën a jël benn añ ba ñaari añ ba ñett añ ndax liggéey sëñ Tuubaa moom yemul fenn te du jeex bu mukk te képp ku la woo ci kaan liggéeyal sëñ Tuubaa rek defal na lam ko tam kon yàlla nu yàlla dolli ay feex te yàgg koo fekke fii yàgg def ay at ati ati ati at ci barke sëñ Tuubaa barkeb sëñ Muntaxa jërëjëf soxna Cuuna ci kàddu yi am na solo lool bokk na ci ci jigéen ñi nga xam ne ñoo njëkk a jaayante ajjuma ci añ yi moo tax mm, ëppoon naa bañ a ñàkk jox kàddu te itam euh, lu góor mën nekk jàmbaar ci liggéey mel na ni soxna su baax moo nekk ci ginnaawam sëñ Asan ñun ñëpp xam nañ ko ci liggéey bi soxnaam moo doon jël kàddu kon ñu joxaat kenn ci soxna yi nga xam ne soxna yi nga xam ne itam ay jàmbaar lañ ci liggéey bi ñoom ñoo doon taxawee liggéey bi njëkk ñuy tàbbi ci 2023 bi kon bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu toog ci jataay bi ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam may jéggulu nag ci jël kàddu gi ndax yaakaar naa ni jataay bi kilifa yi fi nekk bu ñu jëlee kàddu ñun dañuy xeeb suñu bopp ci wax man maa ngi tudd soxna Fatou Bintou Sall doon jarbaat ci Abdou Akim mbay bi nekk ci Angleterre sama dugg nag ci jaayante añu jumaa ji mu ngi jaar ci sama nijaay jooju mu amul yéene teew fi lool waaye nag sori na soriwaay boo xam ne jug bi du yomb donk ma di ko sant bu baax ndax lépp loo xam ne lu jëm ci liggéeyal sëñ bi la rek mi ngi ciy tàbbal ak njabootam awma ma fayam beneen bi mooy may soññ jigéen ñi comme ni ko soxna si waxe moom wax na ci jigéen ñi ne bitim réew donc man damay wax ci jigéen ñi ne biir réew donc fii ci senegaal yaakaar naa ne murit bu ne bunt bu mu liggéeyee la Sëriñ Tuubaa lay wut lii nag bunt gënu koo yaatu te yaakaar naa ne du mas a xat donc buuxante du ci mas a am donc maa ngi ñaax sama mbokku jigéen ñi ndax ay jàmbaar lañ yoo xam ne ci lépp lu ñu suubu rek danañ ca def pëstéef joo xamante ne ni fa ñu bëgg mu àgg fa dana fa àgg waaw mën nag de suubu naaj te jaara mu ngi jaar ci sama nijaay donc maa ngi woo jigéen ñëpp ñu suubu am ci pëstéef ñu rafet ci njort donc yaakaar naa ne liggéeyal sëñ Tuubaa moom kenn du ci woo ab murit muy tànkam donc ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp di sant bu baax eh, kilifa yi fi toog jërë ngeen jëf jërëjëf soxna Fatimatu Bintu jërëjëf jërëjëf kaddu yi am na solo lool te message bi tam jàll na yal na suñ Tuubaa nangu seen liggéey te barkeel ko barke Cheikhul Khadim kon ñu sox jox soxna Ndey Jóob Baay Faal moom jarbaat la ci Sëriñ Abdou Hakim mi nga xamante ni mooy bokk na ci ñi coordonné liggéey bi ci biti réew rawatina Angleterre. asubillahi mina seytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu nu kilifa diine yi ñu fi fekk euh, sëñ Fàllu bu sa di nuyu mboolem gan ñi fi teew yëpp di nuyu soxna yi bu baax a baax di nuyu mboolem ñi ma àndal di sant sëriñ Tuubaa julli ci yonent bi di ñaanal sëriñ Muntaxa Basiiru mu yàgg fi lool te Euh, euh, li ñu fi wax nag lépp lu ñu mën a dégg la muy koo xam ni Serigne Touba moom daa am tànki kanam te amul yu ginnaaw euh, bala maa wax dara nag maa ngi nuyu waa xitma bii nga xam ne mooy ñu góor ñi nekk ci biir jumaa ji di fi liggéey liggéey bu rafet bi ñu fi liggéey ba yaatal ko ba kenn ku ñëw ku nekk rek ñu yaatal la ci muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw rawatina sunu kilifa yii yéen nag nga xam ni ñoom laa bokkal fii may waxee nag sax mën a wax taxu may wax mooy wax dangay fattu ndax ña war a wax a nga ne jëwriñ yi dañ fee nekkut man mii di wax duma cee tuuti lool te lottu ci waaye li ma bëgg a wax mooy ñun waa mu Muxaddamatul Xidma suñu jigéen ñii toog maa ngi leen di soññ yéen a déggal seen boppu waxtaan wi ñu wax fii gis nga jumaay sëñ mbàmba ji buñ tëkkuwaatut te laxasaayu liggéey niñ ko bëggee ni ko sëriñ bi bëggee ñu di ko defee noonu ñeneen danañ ko liggéey defe ko noonu kon nag soññe bi mooy nanu laxasaayuwaat takkaat suñu ndigg gën a bokk ak ñi nga xam ne bëgg nañoo ñëw liggéey liggéey bi ñu ànd kook ñoom te takkuwaat bu baax a baax bëgg defe ko ni ñu ko bëggee sellal ko tey maandu nag tey ànd akuk dal saa bu nekk nekkatee ci jumaa ji na ànd akuk dal di liggéey di tudd yàlla te bàyyi yeneen yi ñuy dox yi ñuy doxe ci biir maa ngi jégglu nag ci kàddu yi may waxeek yéen ma wax ci jumaa ji euh, li nga xam ne muy moom lay doxee ci biir defar bi ndax ñi nga xam ne mooy góor ñi di ko defar di lal nàpp yi saa bu nu xëyee jumaa ji chaque jour ñi ngi koy euh, nettoyer ajjuma dañ koy nettoyer samedi dañ koy nettoyer dimaas dañ koy nettoyé altine dañ koy nettoyé talaata dañ koy nettoyé àllarba dañ koy nettoyé kon man li ma leen wax ni leen na ngeen takkuwaat te laxasaayuwaat ndax bu nu defut kat ñeneen def te bu nit ñi defut sax malaayika yi def kon nag ñun ñi nga xam ne ñun ñooy waa kër Sëñ Tuubaa nan góor góorgóorlu ci defar ci jumaa ji ñii di góor ñi suñu xëyee danañ lal nàpp yi fi nekk yépp danañ ko lal suñu julli gu jot danañu ko lal ba mu egg soxna yi julli góor ñi julli ñu lalaat ñu lalliwaat napp yi tegalewaat ko ba mu egg teg ko fi ñu ko war a teg waaw waaw <laughs> maa ngi jéggulu <laughs> tàpp yi maa ngi jéggulu mooy ñàkk mën a wax gi rek maa ngi jéggulu danañ ko lal yépp ba mu egg ñu lalliwaat ko defaraat ko nettoyé jumaa ji ba mu egg kon nañu takkute laxasaayu ñun nag ñoo ngi woo bépp góor bépp jigéen képp koo xam ne sëriñ Touba ñor na la daal ñoo ngi lay woo ci liggéey bi nga ànd ceeg ñun ñu liggéeyal sëriñ Touba te yàlla rek a tax. ok comme ñu njëkkanteeg waxtu wi rek soxna Fatoumata Bintu mi doon jël kàddu sànq mooy jarbaatu Abdou Hakim mi nekk Angleterre euh, soxna soxna Fatim soxna Fatim euh, Bintu sàll moom itam jël na fi kàddu. am na tam mbokk mu ñuy wax léegi soxna Fatou Diop mooy soxna sëriñ Fallou euh, mi nga xamante ni moom itam ci diaspora bi la nekk ci Angleterre la nekk kon ñu njëkkanteeg njëkkante waxtu wi ñu jox Baye Yade gannaaw su noppee nag sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar mooy tëj jotaay bi ci turu daayira xet ma yëpp comme ni ko yenn ci bokk yi leerale liggéey bi ñu fonkaat ko bu baax te xam ni njëkk ñuy añ rek dafa am mbokk yu ma woo ci Maroc ma leen koy leeral ñoom it xëy na sëñ laat nee nañ bu ñu leen jàppalee benn ajjuma jaayante nañ ci ñaari ajjuma wala lu ñu leen ci jox rek danañ ko def incha allah kon ni ñu ko waxee. liggéey bi buñ ko joxul yitte ñeneen ñëw nangu ko ci sunuy loxo ndax li ñu am nañ ko gën a xam te fonk ko te jàpp ko bu baax a baax a baax kon sëñ yàdd bismillah euh, ñu ngi siyaat ñëpp ñu tey ndokkeel ñëpp mu sant yàlla lool julli ci yonentam sallallahu alayhi wa waaye sant Ahmadul Xadim lool lu yaatoo yaatu yàgg naa bette Ahmadul Xadim waaye betteeti na betteeti na te day yooyu di bett ndax li mu waajal moom képp a ko xam lii bokk na ci loo xam ne xel xel xalaatu ko woon te mënta ñàkk ilham tàbbi na kon alhamdulilah waaye damay wax ni léeg Sëñ tuwaa kum nar sa fay mukk du la liggéeyloo deful kenn defalu ko lenn nit loo xam ne da ko daa soob rek nga def ko lu ko waaye defal lu ne moo ko bëgg kon lii bokkoon na ci ak bëggam yegsi na bu mu laal suuf la sëñ Muntaxaa tàmbalee kon bu mu laal suuf na ko ñépp jàpp ni lii suñu yëfi bopp la ndax li nga ci wax ci ku reggal aji aji ju fam nekk fu mu aji xiif xiif waaw waaw waaye kuy liggéey la amul xaddim nga am yéenee ko jox ko ak lekk tonoom kenn xamul nu mu kon bu laal suuf googee sëñ Mountakha waxoon moom laay wax bu mu laal suuf ne ci ñëpp jàpp maanaam euh, tey nit mën na ni euh, ma mooy joxe añub ajjuma tey domp sax ci sot la bokk domp ci sot la bokk ma ne rukkundeey kenn ne ko juróomi junnee ngi kat dolli leen ko ci maanaam dama bëgg a wax rekk ni na doon suñuy fi bopp bu kenn ne gaaña lañu ñu nar bu kenn lañu naal ñun ñëpp nañ ne la ñu naal naala luñ ko kenn ku lu Sëriñ fii moom la ma Matar waxoon rek moo ci ne Sëñ Tuubaa yëfi ñépp la lu nekk ku ne ngi ci waaye amul kenn ku ciy tàbbal loo xam ne lii sàllaaw du ak bëggam damaa wax sànq ci suba ne Sëñ Tuubaa du ku ñu wax daa xam li xew kon lii dikk na leneen a ngi dikk kon ñun ñëpp nañ ko song te jàpp ne ca la ñuy dajeek ngërëmul Ahmadul Xadim jaa jëf yàlla na yàlla saxal kenn ci gaañu baax ñi doon wax ni euh, nawuma ko tàmbali ko sottal laa xam laa naw waaye bu nu rutoon a sotti du leen ku tàmbaliloo Ahmadu la du keneen salaamaaleykum wa rahmatullah ñu njëkkante waxtu bi rek jox sëriñ Abdou Lahad Bousso Moxtaar tëj jotaay bi ba noppi njëkk mu koy tëj mu leeral liñ doon junj yépp moom lañ ko doon defal ngir mu yi nga xam ne da cee manqué mu mottale ko su noppee ñu ñaanal mbooloo mi incha allah suñu bilaat bisimilah. jërëjëf bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala makin wa ala alihi wa saxaabatihi alxurri almayaamin wa man tabiahum bi ixsaan ila yawmi assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi tedd yi ñuy déglu ak ñi ñuy seetaan rawatina ñi ñu bokkal jataay bi ñoo ngi leen di nuyu ci turu daairatu muxaddamatul xidma te sëriñ Afiya bu sa nekk ca bopp ba sëriñ Abdul Ahad mii topp ci moom nun ñii ñu ànd ak ñoom man ak sëriñ Fallou Mbacké sëriñ Xaadim mii doon wax ak yeneen kilifa yi fi nekk te bokk ci liggéey bi yépp ba ci sëriñ Assane mi mujj a wax di amaan mbégte nag mbégte mu rëy ci jataay bii ndax ni ñu ko xame yàggul dara ñaari weeru ñetti weer ci ginnaaw danoo bokk daje ka sëriñ Afia Bousso ak sunu bokk yi nga xam ne ñoom lañu bokkal liggéey bi te ñu fare ci bitim réew doon fa waxtaane sunub liggéey sunu waxtaanu biir mbooloo nag buñ séqee dara day jaadu ñu di ko leeralante ba ñépp di xam na muy doxe ci waat ba kàddu googu rek lañ doon waxe leeral liggéey bi fi muy jaar fépp ak li ci nekk lépp ci ay taxawaay yoo xam ne daayira bi mi ngi koy taxawe rawatina ci wàllu finance ba agsi ci añ bi sax daa dugg rek ca biir yañ doon waxtaan yi waaye li sëriñ Assane Yàdd wax léegi rek mooy li am euh, mbirum sëriñ Touba saa bu soxlaa mu am rek seen tur bii ñoom moom lay jëfandikoo ilhaamul latiful xabiir moom lay daal di jëfandikoo da koy daal di jël rek def ko ci xelum doomu aadama yi ñu daal di jóg jëm ca te boobaa tur wu lay tudd yërmande ji ak ñeewante gi ak xam gi muy xam lépp nag muy latif ak xabir bi daa feeñ ci lii bu baax a baax dana laaj nag ñu dellu si tuuti ñaar yëf benn bi mooy njariñ li bi ci des mooy cosaan li njariñ li moom ñaar rekk doy na ci ñaar yoo xam ne ku lu way gàtt gàtt am nopp tey déglu ñuy wax ci liy yóbbu luy leeral ñiy leeral islaam dégg nga ko ba tey benn bi am na soxna soo xam ne sunu boroom mu ngi ko tàbbal sa wara ci sababu menn muus moo xam ne xëy na muus ma da koo tooñoon mu tëj ko joxu ko mu lekk joxu ko mu naan ba mu faatu ca la sunu boroom sukkandiku ba dugal ko sawara wala yaasu billah beneen bi ci des koo xam ne judd na ba daanaka li dox diggam ak faatu tuuti la mu séesu koo xam ci lenn lu jëm ci jaamu yàlla ci safaan rek lañ ko mas a xam waaye bés muy dox ba gis ab dawkat walla ab xaj niñ koy waxe boo xam ne mu ngi yalkat ngir mar sonn lool mënatu la yëngu mënatu la def lenn ngir mar mu xool xool yërëm ko xamul nu muy def mu summi aw dàllam dem ca seyaan ga fexe ba tànk ca am ndox ñëw xool ko ko wax nañu ne ca loolee ca la sunu borom sukkandiku ba tàbbal ko aljanna mu mel ni kon la yonent boo xoon ne wépp bépp boroomu res bu tooy àjjanaa nga ca mooy soo ko joxee mu lekk rek ngërëmul yàlla nga ca te ngërëmul yàlla mooy yóbboo àjjana kon loolu rek doy na ci fàggu njariñ ci yi ñu taxawalte tey te ni ko sëriñ Adi waxe woon léegi dañuy wax ne reggal benn biir moo gën tabax junni jàkka te ku nekk xam na ni yonent bi ne woon ne ku tabaxal yàlla jàkka ji toll ni tàggum picc sun borom tabaxal la njën mi ci aljanna kon nag njariñ li kenn xamul lu mu toll sëriñ Tuubaa daana wax ne yoon wi gën a gaaw yoon wi gën a gaaw ci ngërëmul yàlla mooy joxe aw ñam looloo sabab mag ñi àndoon ak sëriñ Tuubaa ñëpp bu ngeen xoolee seeni mbir dangay gis ne ñoom ñëpp ay joxekati ñam lañu kon joxe ñam njariñ li mënee su koo lim mënee su ko takk kon foofu doy di ca mu des cosaanul li añ bii añ bii bi ñuy dàmbali liggéey bi ci atum 1994 maa ngi wax li may wax sëriñ Abdul Ahad mi seere na ko ñi ngi ko tàmbali woon daan ko defal sunu bopp booba kattan gi néew na lool ci lépp nag la aj woon dañ daan xëy dem fii booba syndicat baa ngi fii ci bunt ko sëñ Mahmadan Jobe jën fa ay bale sëkk jënd fa ay morsey fëgg jaay morse yi fëgg jaay yi bu ñu dikkee moom la ñuy milancé bale yi sëgg yi moom lañuy yor ba di ko balee ba noppi booba bu nga bëccëgee bu ñu dajalaatoo suñuy juróom-juróom suñuy fukk-fukk te li génne ab junni jox ko suñu affaire mu dolli ñu ko ci añ bi bu noppee jaar fa këlamti koo ko dem ñuy dox tuuti am ñoo xam ne taxawoon nañ te mu dikk ne dañuy ñëw ngir jàppale ju ci ñoo ko yóbbu ci ñetti junni ba mu yàgg ñu yóbbu ko ci juróomi junni waaye li sëriñ Assane doon wax léegi ñeewuma kii tàmbali ki àggale laa jee amoon nañ pas-pas bi amoon nañ yéene ji waaye loolu doxul diggante bu gàtt la dox mbooloo mooma mel ne taxawatul ñu laat ko suñu bopp ci condition yu metti ndax boobu juróomi junni yi diis na ci ñun lool di doxak moom di dox moom di soox ak moom di soox moom ba mu agsi fii mu agsi tey muy euh, ni ñu ko waxee woon ca ca ndaje mi te ba mu fa agsee kat sonal nanu diis na ci nun waaye diis na ci sunu kilifa ndax ba léegi dañuy jël rek lañ mën a am joxe ko sunu kilifa di sëriñ Afiya mottali ko ci noonu la ñuy doxee ba agsi fii te nag macha allah dañoo am ay añkat ndax ay séeréer a ngi fi yoo xam ne dañoo jàmbaare jàmbaar goo xam ne ci ab liggéey waxuma ci añ waxuma ci añ xëy na ginnaaw samay gàmmu lañ moom bu ma waxee dañoo jàmbaare dañu jàppane añ bee tax waaye dañoo jàmbaare jàmbaar goo xam ne laaj na sëñ aadi ñu leeral leen ko ñoom ñi ngay gis ci sa ginnaaw kenn ku nekk dafa yor ab liggéeyam ñee nga ndakaaru ñee nga ndar ñee nga bambay ñee nga fu nekk ci réew mi waaye benn xew xew buy am bu ñuy defee seen kër amul ajjuma nag moom bañ gëjee xam nu seen kër mel ak léegi lu gàtt gàtt lee mu dem ci fukki at ak juróom kere ba leen Cheikh Mouhamadul Amine Baara boole ak nun ñu ànd liggéey bi ba léegi amul genn ajjuma joo xam ne kenn ci ñoom fa nga nekk fa nga nekk lu mu sori sori fa ngay xëye ñëw te boo fi jógee liggéey bépp dafa jeex ba lépp fatu buy kuréel bu am solo bu am doole ci biir liggéey bi Sëriñ mii doon wax léegi di seen jëwriñ ak bàyyatu soxna yii ngeen di gis leeral nañ ko léegi bis bu yàlla sàkk bis bu yàlla sàkk am na kuréel ci ñoom yoo xam ne ñooy ñëw xëy suba teel bale jumaa ji ci semaine bi yëpp ñi nga xam ne nag dañuy xëy si ajjuma daf cee bari ay ndaw am ci ñoo xam ne ñu demee ñii lañ nga xam ne seeni dëkkuwaay sori na am ci ay ndaw yoo xam ne dañoo dëkk ci dëkk bi ñu jaboote leen bu ñu nekkee ci liggéey bi di liggéey du ñu mën a téye seen waa kër ci ab añ te këru Tuubaa këru wàccukaay la mën ngaa dellu fekk ñu ami gan lu ne mën naa xew ci loolu moo waraloon ñuy togg añ bi bañ koy togg it dem nañu ba mu yàgg dañoo mujjoon wax ne ñun ñii nga xam ne xëy na suñu borom taw féexal nañu yor nañu ay kër wala ñi nga xam ne seeni kër jege nañ ñu ne leen yéen moom boo ci kenn añeeti ci añ bi bu ñu liggéeyatee ba noppi dem leen ñibbi yéen añi ñeneen ñii nag dañ leen bàyyee añ bi loolu nag nañ xam ne ba fi ñu ne itam soppi ko wut soppi ko wut ñañ daan wutal añ bi ñooñe lañuy wutal añ ba léegi ñañ daan toggal añ ñooñe lañuy toggal añ bi ba léegi dañoo bëgg liñ leen di jox doon loo xam ne day doy sëkk ci ñoom ba tax na noonu ñi nga xam ne xëy na am nañ pexe nañ leen ko bàyyee lu mu nuur nuur lu bari ne leen doy ne leen doy sëkk ñoo ngi sant nag bu baax sëriñ Fallou Diop mi nga xam ni moo mbir mu ne xalaat bi day am ku mu tàmbalee ci moom la tàmbalee mu xalaat ko waxtaan ci ak kilifay daayira bi jokkoo ci ak sëriñ Assane mi nga xam ni moo coordonné liggéey bi ci biti sëriñ Assane it tënk ko waaye dafa daal di jokkoo ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne ñoo amee liggéey bi ci àdduna bi te loolu su ma ko waxee sëriñ aaj mii dana ci doy seere ñoom ñëpp ñu waxtaane ko ba tënk yàlla dogal ñu daal di koy lancé bi ñu ko lancé it mbir ni lii sëñ Assane doon wax léegi mbir bu ko sëñ Touba yi buy dekkee yi tey sëñ Touba rek bu bu jógee day daal di tàbbi ci xol yi naka la jóg rek xol yëpp nangu ko daal ci taxaw taxawaay boo xam ne ñun njëx am nañ ci mbett ci ni mu gaawee ci niñ ko nangoo ci yéene jiñ ci àndal ci pas-pas biñ ci àndal te pas-pas boobu kat dafa laal góor laal jigéen bi mu jógee rek dafa am aw jigéen ñu daal jóg soobu ci ci saasa soxna yii ci sunu gannaaw ci lañ bokk ak soxna yoo xam ne ñëwoon nañ fi ci ginnaaw am na soxna si ma nga ca Amérique waaye kër ba mu ko déggee rek ca saasa dafa daal di jël ànd nag soxna cuune mii ba ñëw fi bi mu ñëwee vacances Euh, diggante nag mu mu tàmbalee nag loolu nu ñu ko waxee ci diggante sëriñ Fallou Diop ak sëriñ Abdou Hakim Mbaye ñoom sax cëg njëlbeen dañoo bëggoon mu nekk rek mbirum Angleterre waaye ñoom sa yaar yeeg sa yaasan ñoom xamal leen ne leen déedéet mbirum Sëriñ Tuubaa du lu ñuy tënk ci dëkk du lu ñuy tënk ci waxtu du lu ñuy tënk ci aw nit waaye lu ñëpp bokk la lu ñëpp bokk nag ñépp dañ koy bokk na yaatu sëriñ aadi moom programme bi nga xam ne moom la jël ca ca ca ca ca Espagne ni mu ko waxee nga xam ne moom ba mu accès Espagne da dee deet am na solo de baax na ñu jaayante ko ci nit waaye nit day am fu muy tàmbalee am fu muy yem di man di tële di fekkee di wóote di dund di faatu kon teñ koy def ci li nga xam ne waxtu bu nekk mu ngi fii xalaat bu rëy la bu rafet yàlla na la ci suñu borom fay si yéene Euh, waaye biñ ko tàmbalee wax na ñu ngi koy tàmbali ci mois de euh, janvier ci atum deux mille vingt nangu gi xol yi nangu ak it yéene ji ñu ci am ak pastif bi ñu ci am ba mu gaaw a doxee ni mu gaaw a doxee moo tax ñi nga xam ne ñoo ko lancé woon dañ ne ñoom dootuñ xaarati sax deux mille vingt ñaata ajjuma des ci diggante bi ñu ne juróom-ñaari ajjuma des na fi ñu ne acco nañ ko jaayante kii jël bee jëloon nañ ba noppi de ci biir at mi. waaye ñu ne déedéet nañ daal jaaw ñu daal jëlaat li des ci at mi ñoom te yàqul dara ca lañ jëloon ca biir at ma loola am nay góor am nay jigéen sëriñ Fallou Diop a nga ca soxna sëriñ Fallou Diop a nga ca doomam a nga ca jarabaatu sëriñ Abdou mbay Mbaye nga ca mu ngi nii toog soxna sëriñ Assane Diop mi ngi ci. bu ñu gisee nag euh, ñu amee ci taxawaay bu toll noonu ñoom wóor na leen ñi ñu doon waxal ñu di leen jox doy nañu leen sëkk. ba lañ leen jox buñ ne leen woon dañ koo tàmbali lu jiitu at mi tàmbali duñ ca wax dara danañ ca ànd cent pour cent waaye seen yéene ci ne liñ leen wax nañ leen ko defal ca bis bañ leen ko waxee dara bañ caa soppi ko loola moo tax ñu wëlbatikuwaat jaayante geneen jaayante goo xam ne dañ koo jiital ndax wax na ñoom ni leen sëñ bi nangule dal ci mbir mi ak ci wuyu gi leen ci nit ñi wuyu amatuñu sañ-sañu toog di xaar waxtu wa jot waaye dañ koy daal di tàmbali ñoom ci seen bopp bu waxtu wa jotee nag kenn ku nekk bis bañ la waxoon bu agsee ñu defarale ko nañu la ko waxe woon ma gisaat ci nag ne yéene ji sëriñ Aadi Ture am léegi te wax ko te di ko doxal tam ci mu yaatu ba ñëpp jot ca sëñ bi maa ngi dalal sam xel ci ne la indi lii mooy indi loolee dana yaatu ji lool yii ngeen yéene mu am ci it jàpp naa ne dana ci am yoon woo koy indi it sëriñ Asan wax na ko léegi murit yi moom duñ bàyyee kenn liggéey bu jëm ci sëñ bi te am na ñoo xam ni xëy na mënuñoo jël ab bis waaye mën nañoo yokkal ka nekk ca waañ wa te suñ ko yokkalee yeneen yañ soxla woon yépp dana mën a am ki ñëw fekk ñu joxe dépense bi dépense mën naa togg añ bi nga bu ta nga yokk mu keneen joxe ca joxe ca ab yokk yokk boobee dana gën a taaral liggéey bi te loolee mbirum tey mii feeñal na ko ndax biñ koy tàmbali am na ñu joxe ab yokk yokk bi it gis nga ni mu ci feeñe ak ni mu rafetalee liggéey bi bu ko defee nag kon ñoo ngi sant euh, bu baax Cheikh Mouhamadul Fadil Diop bu baax di la ko yóbbante sëriñ Adi di sant sëriñ Abdul Hakim di sant sëriñ Bara Ndiaye Baye Fall di sant nag jëwriñi liggéey bi yi diaspora bi di sëriñ Assane Diop xaw ma yow lañ ko yóbbante nag xaw ma soxna Cuuna lañ ko yóbbante xam naa ne danaa ko yób danaa la ko yóbbante waaye bu ma ko yóbbantee soxna Cuuna moom sëñ dana ci gën a bëgg <laughs> kon nag maa ngi leen koy yóbbante yéen ñaan ñëpp di ko ñaanal bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am na ko ci liggéey bi waxtu wu ne guddi ak bëccëg suba ngoon muy soññee di kordone di jokkoog fu nekk ci àdduna bi yéene leen lu baax li mu yéene boppam bëgg ñëpp jariñu loola rek ci lay xëy ci lay gont kon ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm te di ko ñaanal suñu borom gën koo dimbale bu baax a baax te gën a di gën leen a dimbale yéen ñii itam nga xam ne yéen jiite liggéeyub Serigne Touba bi ci biti ndimbal am na waxoon kooku keroog. waxoon nga ne ñëpp xam nañ ne ndimbal am na ndax tapis yi waxtu wuñ ko song ak waxtu wuñ ko daaneel euh, euh, ku ne xam ne ne ndimbal la yaa ko waxoon waaye ndimbal loole mën na yokk waxtu wu ne yàlla na yokk waxtu wu nekk te suñ borom yàggal leen fi lool ci biir yàgg yi nag muy dolli seen kàttan waxtu wu nekk ak seen wér te defal na ko ñun ñii tam ñi nga xam ne ñoo nekk fii ñoo ngi soññi sunu bopp di soññi sunuy bokk bokki taalibe bi yëpp yi nekk ci bitim réew ak yi nekk ci biir réew mi yëpp euh, jóg kat jot na ñëpp a ngi jóg nag te ñëpp ñi nga jublu si ci liggéey bi am na soxna su ko wax léegi lo ku sàggan rek ñu raw la kon nag bu kenn sàggan na ñëpp farlu na ñëpp góorlu nu ñii fi nekk day fu taalibe Sëñ waa nekk rek yéene nañ la njariñ la fi nekk ñun nag ñu ngi koy gis xam nañ njariñ li fi nekk waaye tax na nag ñu yéene ko bokk jullit yépp yéene ko bokk taalibe bi yépp te bëgg ñépp jariñoo loolu rek moo tax ku jóg ne bëgg na maa def nangam ñu xool loola doon lu ñu war a def rek ñu yaatal la nga def ko ndax la Cheikh Mouhamadul Fadil waxoon rek samay suñu yéene dañ koy barkeeloo ca kàddoom yooyee sunu yéene xatul ñaawul kon nag bëgg nañu rek jariñu ñëpp jariñu loolu la waxoon noonu ñu ngi koy barko barkeeloo ca kàddoom yooyee mu waxoon di ñaan suñu borom jàppandal ku ci bëgg a def rek bu jàppandal loo ci mën a def ku am yéene ci def ci it borom jàppandal loo ci mën a def ak fu mu mën a nekk mbokk yooyu sëriñ Xaadim wax léegi te ñu nekk ca Maroc ak mbokk moomu sëriñ Aadi wax te mu nekk ci biir réew mi ñoo mbuur yaakaar naa nga waxoon Touba Daarul Minan ñooñu ñëpp ñu ngi leen di dalal jàmm bu baax di leen wax ne coordination bi moom benn rek la waaye bu dee ki mbokk euh, ki ki mbokk euh, mu sëriñ aadi wax bu jaaree ci sëriñ aadi dana agsi bokk yépp buñ jaaree ci sëriñ Xaadim dana leen teg ci yoon ba li mbir mi jaare fa mu war a jaare waaye ku xam kenn ci waa daayira bi rek te bëgg cee barkeelu ak fu mu mën a nekk bu jokkoo ak moom dana ko mën a jokkaleek ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi kon ñi ngi sant bu baax di gërëm bu baax di ñaanal bokki jullit yëpp di ñaanal bokki taalib yëpp di sant sëriñ Assane ak bokk yu tedd yi nga xam ne ñoom la àndal nga xam ne eh, jàppoon naa ne yëkkati xasida rek lañ man waaye ndeke sëñ aadi nee na am na leneen luñ man waaye ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm te di leen ñaanal suñu borom defal leen tawféex te defal ñu ko eh, di séentuwaat ñëpp nag ci ñuy gën a jëm kanam rek di xool lépp luy defar liggéey bi rek nii ko ñu gisee rek ba def ba taxawal lii lépp luñ gis ne luy defar liggéey bi rek tàllal nañ ñëpp loxo asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu sëriñ jërëjëf ci kàddu yi am solo yi mel na ni kàddu yi ëppoon naa bañ a yëkkati leer na te itam ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew yëpp buñ ko déggee. ab joxoñ la boo xam ne manees na cee jaare bunt yëpp ubbi nañ ko ñu ngi lay jaajëfal ci kàddu yi mel na ni itam si sey biir kàddu mën nañ cee sukkandiku ne liggéey bi pas-pas bu sell moo ko lal yitte ju kawe moo ko lal mel na ni njëlbeen gi sewoon na mbiram tàbbi ci ndax damay faral di wax ne barab bi moom liggéey bi nekk ci jumaa ji dafa gën a wér ndax sëñ baa ngi nii liggéey baa ngi nii dafa gën a dal xel te gën a yaakaaru mel na ni itam pësteef moo ko lal ndax sëñ Abdou Lahad da day wax ni pëseef ak tubéy ju amul gañoo yam loo ko ñedd ñedd te am wadd pëseef mooy àggale murit fu sori néewaana looy gis mu tàmbale ab diir dégg toolu bokk ci moom pas-pas bi ko lal moo dëgërul waaye ku gis liggéey bi ni muy doxee xam ne sëñ Tuubaa mi ngi ci mbirki bi ñu dencee bàyyi sëñ Modu Maamun mii ba noppi mën ak Assane Mbengue dañuy waxtaan kenn ku nekk di wax ne ñi nga seqal liggéey bi ñooy say mbokk ndax mën ngaa toog ay bis yoo xam ne li nga ñi ngay sëq liggéey bi ñi ngay jonjonteeg ñoom ak li ngay li lay jaaxal ci àddina ak li ngay bëgg ci lu baax ñoom nga koy waxtaane kon liggéey bi nañ ko fonkaat bu baax ñun ñi ñun ñi nga xam ne suñu borom daf ñoo defal tawféex boo xoolee lu jiitu ña nga xam ne ba Cheikh Amadou Fadal di ubbi jumaa ji 63 ñooñu wéy nañ am nañ tawféex ju rey waaye buñ demaatee téeméeri at ci kanam dañ naan ñan ñoo fekke woon jotaayu jaayante añi ajjuma yi te su boobaa sunu tur ñun ñëpp lay dugg ci histoire te kenn ku nekk bëgg nga bu ñuy bind histoire ñu boole ci sa tur rawatina bu ñu koy bind ñu bind ko ci jumaa yi sëñ bi dafay bàyyi ndigal yu bari waaye yii moom bokk na ci yi gën a wér muy jumaa yi kon ñun ñëpp nañ yeesal suñu pasteef yeesal suñu jaayante te xam ne li fi nekk kenn duñu ko defal suñ ko tëlee def nag sëñ bi tàggat ñeneen ñu ñëw def ko ndax liggéey bi du laal suuf incha allah kon ñu ngi jéggalu kàddu yi di wax liggéey baa ni ubbi nañ ko sëñ Abdou Lahad Bousso mu talib wala sëñ Abdou Lahad Bousso Mokhtar kon ndigal li mooy ñu ñaan te yëkkati jotaay bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.